إله معشر الخلاء لا سكر مني ما الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi bokki diine ji bokki lislaam bi di leen ziyaar di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi di bisu iid al adha mubaarak bi ñu yàlla may ca kàttanam gu ga ak nammeelam ba ak mbaaxam nga ak yërmandeem may nu ñu fekkeeti ko waaye nu dellu di ko ñaanaat ca mbaaxam nga yërmandeem ja ba tey mu dolli ne mu dolli noo may ñu koy fekk ay ati at te di ko tal te di ko man itam mën na ko yàlla na ko defal ku ko fekke rek sant yàlla moo la war doolee sant moo la war ndax fekke nga ko fekke du sa kàttan du sa man-man du sa bari pexe baaxam sunu borom la mu fekkee loola ndax am na ñoo xamante ni nii day bëggoon nañoo fekk bisu tey bii te fekkiwuñ ko te seen ak yaafus seen ak ñàkk defal yàlla taxul sunu borom la neex rek mu jël leen kon ku ko fekke war ngaa sant yàlla kon nu doolee sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ba baax a baax bu dolli koo ñaan may mu koy fekk ati at noo ngi ndokkeel ñëpp waaye noo ngi tàmbalee ñaan ak nuyu bi ak ziyaar bi di ko teg niñ ko daan tegee ci mbooleem sunu kilifa sunu kilifa diine lu baax yi yi nu yàlla wërsëgale ñu nekk ci sunu kanam dinu tette dinu wan yoon dinu gën a may doole ñoom ñépp ñoom ñépp kenn génnu kulluhum laa wax ñoom ñépp ñoo ngi leen di ñaanal di leen ziyaar yal na leen sunu boroom dolli kattan yal na leen sunu boroom dollee jàppale yal na leen sunu boroom dolli njub gi nga xam ne ci lañu ne te bëgg ñépp jaar ci ak njub rek lañ ñu bëggal lu baax rek lañu ñu bëggal moo taxit nun lay sunu waruga mooy nun tam nu yombal leen mbir mi mooy toog di leen déglu rek toog ànd ak ñoom di leen déglu doyloo leen doyloo gu mat sëkk xam ne ñoonu gën a bëgg lu baax ñoonu gën a bëgg lu baax luñ ñu teg rek ak luñ ñu wax rek suñu njariñ la suñu njariñ la kon nañ leen yombal yombalal loolu bu baax a baax dolli leen a déglu te dolli leen a ñaanal te dolli leen a gëm bu baax a baax a baax walbatiku yit di ziyaar mboolem ñi nga xamante nii mooy aima yi nekk bi na nag ñu nekk ci liggéey bi yépp jàpp ci jiite ko di ko doxal ñu leen di sant di leen gërëm bàyyiwuñu kenn kuy taxawoo kuy joxe ñépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a ñaaxaat bu baax a baax ci barab bi di leen gën a dolliwaat ñu gën a pësteeku ci barab bi barab bi nag taxawut bu yaakaar ne dafa taxaw taxawut de xaj na jamono ci boppam mooy doxe noonu waaye taxawut li ñu am daal ñu ngi koy dajale te lu nu dajale it ngi koy denc incha allah dañoo bëgg rek gaa ñi gën a góorgóorlu ndax buñ jógaatee rek mën a sori lool waaye nu ngi dajale de taxawuñu de ñu ngi dajale bu baax a baax lu ñu am dañ koy déposé ci banque ak compte la am wëlbati ko it nag di euh, ñaan di ñaan di bu baax a baax a baax ñaanal suñu waajur yi nga xam ne ñoom itam ñoonu fekke woon ci liggéey bi dem bàyyi ko ci suñu loxo noonu tam ñu téye ko ci ñooñu it ñu leen fàtte ñu leen di ñaanal bu baax a baax di leen fàttaliku bu baax a baax fa ñu tëdd yal na leen fa yërmande suñu borom fekk yal na leen suñu borom gën a euh, yërëm bu baax a baax gën leen a euh, dolli ay xéewalam bu baax a baax jot nañ fi it ñu wax ni am na fii ñu fi teew. yónnee fi ay seeni ndimmal ak seeni ndaw seeni ndaw am na fi ñu fi yónnee seeni représentant dama xaw a fàtte wax nañ ma ne ko mel ni maire Baara Gaye waaw ak ak docteur Cheikh ñoom ñëpp yónnee nañ fi ay délégation ginnaaw bu fi yónnee seeni ak ministre Ahmad Wat moom itam yónnee na fi ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ndokkeel ci bis bu baax baax suñu borom gën a jàppale bu baax baax baax a baax ñu ñu gën leen a taxaw bu baax a baax loolu daal moo doon kàddu yi gën a dolliwaat ñaax li ma doon wax sànq lay gën a continuer nun Sénégal coow li bari na lool xëccoo bi bari na lool wax ji bari na lool waaye ku bëgg a noppali ci wax ju bari ji ak xëccoo mi su fekkee am nga kilifa bu mat kilifa koo xamante ni nii su jël décision jotee dana jël décision te li mu jël loola mooy la gën da koy jox sa bopp te ko déglu te bàyyi yeneen yi nga xamante ne nag moom kenn xamul fu mu jóge ak kenn xamul fu mu fu mu jëm di Sénégal li fi nekk ci diine wallahi alazim benn réew benn réew mu gisuma ko fa ci diine li fi nekk ci diine ju dëgg te nag li ma li may wax dama koo xam bu baax a baax ndax dox naa gis naa dox naa gis naa mboolem réew yi ci des yépp diine jë gouvernement ba moo ko colonisé moo ko not fii ci senegal nag contraire la diine ji moo not gouvernement loolu moo tax li fii xew ak lay xew ci yeneen réew yi ci des du bokk loolu na ko ñëpp xam bu baax damay wax saa su nekk may leen araab yi arab yi ñoom tënkuwuñu ci ay séentu weer maa koy wax ca kaw ñëpp di ko dégg te li may wax it ku bëgg am preuve da ngay ñëw ma sama kër ma walla lay preuve ay calendrier la ñuy woore saa yoo xamante ni koor jot na calendrier yi lañuy jënd ni bis sàngam la ñuy tàmbale bis sàngam la ñuy jeex waxoon naa ko dama koy waxaat calendrier bis sàngam la ñuy tàmbale bis sàngam la ñuy jeexal tabaski noonu la fi mu nekk nii màkk gee xam nañ bisu arafaat kañ lay nekkaat diwén te loolu wër wërta a am ci weeru lislaam weeru lislaam séentu la am séentu la am gis def waaye ñoom séentu wuñ kenn ñi mu faa nekk naan da ngay séentu weer kenn ñi mu faa nekk naan da ngay séentu waat moom kay da ngay toog gouvernement bi ni bis sàngam nañ def bis sàngam nañ dindi nga def nga dindi loolu rek moo fa am waaye taxaw di séentu weer boo séentu weer ba séen ko it ñi ma ko wax kenn te boo ko waxee kenn du ko dig kenn du la dig benn ndigal moo fa am ndigalu gouvernement benn tere moo fa am tere gouvernement am la fii ci senegal nag dañoo sukkandiku ca la yonente boo xam ne bu ngeen gisee woor leen bu ngeen gisee woori leen da leen xool ba gis ngeen def bu ngeen gisul bu leen def ñu loolu lañ tënk ñi baax ñi ñuy jiite ci loolu lañ tënk loolu tax ñu di leen topp di leen gën a gëm bu baax a baax di leen gën a ñaanal bu baax a baax yal leen leen suñu borom gën a jàppale bu baax a baax gën leen a taxaw bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waxtu wi na kon nag si alhamdulilahi rabbil alamin bokk yi gannaaw a nu nuyoo gannaaw bi nu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi nu ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaani yàlla boole nu jéggal tey fàttali ne bis bii moom lañ tuddee Aydul Kabiir ndax lëkkaloo gi mu lëkkaloo benn farata yi wala benn ponk ci ponk lislaam muy aj moo tax ñu Kabiir te it duñ fàtte ne sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee Madinatu Munawwara jóge màkk gàddaay dafa fekk ñuy foo di caaxaan ñu ne ko mu ne leen lii lum ñu ne ko lii kat nun dina amoon ñaari fan ñoo xam ne dañ ko daa def yii ca jamono yi lislaam ñëwgut mooy jamono ut fukki gis mu ne yàlla remplacé li leen ñaari fan ñu gën te mooy tabaski ak korite kon war na ñoo xam ne si mii promotion la bu réeréeri kon promotion yi nan ko fonk nin fonk promotion yi suñ suñ portable yi mooy li nga xam ne moom li ñu ci war bari na waaye nu xam ne sant yàlla bisub sant la bisub sant yàlla la bisub tudd yàlla lay julli gu ne ñetti fan foo foo salmali julli farata na nga wax allahu akbar allahu akbar ñetti yoon wala nga dolli ca leneen sax waaye loolu mooy li gën a gàtt kon bis la boo xam ne bisub jaamu yàlla la tayit loola sunu borom waxoon na ko ca teel wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun bindu ma nit ak jinne lu ma ñu jaam ma kon xeeti jaamu yàlla yi la bokk kon nan xam ne jaamu yàlla nag dafa am fu koy jële Seydina Omar radiyallahu taala na fana daa waxoon lu wér dane inna diinana haada mabniyyun ala naqli laa ala munaasabati l-aqli diine jii muy lislaam dafa sukkandiku ci ay texte réewale waaye sukkandiku ci ay xalaat tayit nag da ngay gis ñu bëree bëri di jaamu yàlla xeeti jaamu yoo xam ne yi jëlewuñ ko ci alxuraan jëlewuñ ko ci sunna te jaamu yàlla ku mën a doon dafa am ay conditions yu bari waaye ñaari conditions yi gën a rëy ci jaamu yàlla ku mën a doon nag nga xam ne ku ñàkk duutu duutu baax mooy def ko ngir yàlla képp def ko ngir yàlla képp ak topp nga ci yonent bi képp mu jeex kon loolu mooy ñaari sàrt yi nga xam jënd jaamu yàlla mënu ko ñàkk kon nan sàmmoon teeg pas-pas yu wér pas-pas yu wér ndax pas-pas mooy fondation bi l'islam bu pas-pas bi baaxut leneen doo ca mën a teg julli li muy rëy rëy bu fekkente ne pas-pas bi baaxut julli gi du baax kon boole teg ay teggiin ak jikko yu rafet yooyu mooy islam si Ahmadul Xadim xaar loolu la Maxtaan dafa wax ne islam du ko séddale woon ñetti xaaj. ñaar yëpp ay teggin ay teggin nag daa bari lool teggiini jaam bi digganteem ak boroomam waaye tegginam ak digganteem ay moroom ay moroom mooy ñan mooy moroom mbindéefam moroom yi yëpp nag bay sa dàll yi sa mbubb mi sa lu ne am nga teggin yoo war a jëflanteeg moom kon yooyu nañ ko bàyyi xel bu wér a wér rabbana laa sa quluubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillah alladi jaala yowma alxiid yowma tawsia wa tafrihi wal itlaaq wa salaatu wa salaamu ala man axrajana min zulmati ljaali wa shirki wa nifaaq wal imlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin fi jumlati l-aafaaq amma baad fa haada al-yawmu yawmun mubaarak wa lanaa fiihi shay'un fiihi lam nusharik fa ahmadu llaaha tabaaraka wa taala ala man jaada bihi fiihi للمنتقى عليه السلام بجميع مختفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتح رزق فمن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يسفر بكل ما من الخير يستفيد فاطلبوا الله تبارك وتعالى فيه خيره فإنه تبارك وتعالى يسرب إلى غيركم ضيره وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من دون العصيان فإنه يغفر لكم ويكون إلى غيركم في الطغيان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 bu bari ngëyeel bis boo xam ne lislaam rek ko am mboolem ñi ñu tudde dafa lislaam lislaam li ñu rëy rëy amuñu bis bu mel noonu kon nan ci sant yàlla sant yàlla nag dafa yaatu lool sant yàlla ci mboolem jumtuwaay yi yàlla jox moo xam suñu ñaari cër yi moo xam moyen yi nga am moo xam alal yi nga am bépp jumtuwaay rek dañ ci sant yàlla loolu mooy sant yàlla waaye alhamdulilah képp boo jël wax milliard par bisit ci saw làmmiñ làmmiñ yu sant na waaye sant nag daa làmb ñetti cër mooy xol bi mooy jëkk sant te mooy kennal yàlla ci lépp ñaareel bi mooy làmmiñ wi sant yàlla moom itam wax di tudd yàlla ak di jàngali sax ak di ko jàngale ñetteel mooy cër di jëfandikoo li nga xam ne moom la xol bi gëm làmmiñ wax cër yi di ko jëfandikoo juróom-ñaari cër yi ndax si xaar loolu la maxtaan loo am na fuy wax ne ni ngeen xam ne cër yi doomu aadama juróom-ñaari cër la bunte sawara juróom-ñaari bunt la léegi nag benn cër bu ci ne dafa communiqué dafa jàkkaarloo benn bunt ci sawara léegi nag cër bu doomu aadama ji moye bu yomal xayamee bunt boobee buntam lay cër boobee buntu sawara ba mu ba mu foofu la jóge te it xam ne benn cër du dugg bàyyi morom xam nga ne ab loxo du dugg bàyyi fi tànk yi wala mu bàyyi fi biir bi kon loolu nañ ko bàyyi xel kon kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi mat a bàyyi xel kenn ku ne nga sàmm sa bopp sàmm sa njaboot sàmm responsabilité yi la société bi jox société bi risque mu tàmbale ci président de la République responsabilité yi mu yor ak ñi ànd ak moom tàmbale ci xalifa généraux yi ak kilifa diine yi ak imaam yi kenn ku ne am nga loola war sa diggante ak nit ñi. waaye li ñu yor du fal almasuli taklif la tashrif responsabilité ak yan la du honneur koo fal nag mu defee rek moo xam ci diina boole xalifa wala sa jiw muy yëkkati mbagg déedéet daa war a tiit daa war a jàq ndax loolu ñu ko yan ab responsabilité te kullu masul kullu kullu kullu ko masul kenn ku ne daañu la laaj li nga yor ci responsabilité wala ku la ëpp rek ku la ëpp responsabilité rek yemul xel moo lay gën a ndax ñi ñuy laaj ñu bari am na ñoo xam tur li ñuy laaj trente am ñoo xam ne deux cent deux cent am ñoo xam ne lépp loolu kon responsabilité yi bu ñu ko jàppee ay pal nañ ko jàppee ay liggéeyloo yàlla nag comme ni nga xamee doo liggéeyloo responsabilité lu mu gën a rëy te nga sàmm la ñu ci war a sàmm yëpp yemul xel am sa pay noonu lay toll noonu ngay gañee ñu ko amutoon kon di ko tàmbale ci kilifa yi diine yëpp tàmbale ci xalifa généraux ak kilifa yi diine yëpp jàngalekat yëpp di ndokkeel nag waa jumaa ji tàmbale ci imaam yi ak ñi ci topp ak ñëpp rek ak ñi joxe nag ak ñi joxe ñoo ngi ndokkeel ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñi nga xam ne def nañu ay contribution yu réeré ci julli ji am na ci ñoo xam ne bëgguñu ko ko tudd waaye yàlla xam na leen yàlla yàlla fi seen ñi nga xam ne dañoo yéene woon te defuñu nga xam ne mënuñu ñooñu yàlla yàlla faj seen aay ndax yéene kat dañ koy fay mu ñuy fayee jëf waaye kañ lay doon mooy li nga mën a jëf lépp boo ko jëfee ba jeexal li jeex nga yéene ko wax lañ lay fay kon loolu nan ci delluwaat bu baax a baax tayit baaloonte ak tayit mu nekk dëgg ci ñun waaye ba baal mu ne baal naa la rek yéneen loolu du du balonte balonte ak ni ko lislaam jàngalee ak baalante ak ni ko lislaam jàngalee tuub ni ko lislaam jàngalee nu defe noonu waltuf binaa wa qawwinaa wa kun lanaa wa hab lanaa husnal xitaami rabbana wa salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bihi xaajati kulli muslim subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin